di gërëm di sant suñu mbokk journalistes yi seen teewaay bi tey tey la ñuy def lancement la FIDAK bi nga xam ni moo ngi am du 28 novembre au 15 décembre sànq comme ni ma ko waxee sama discours bu weesoo FIDAK bi dañuy fêter les 50 ans bu CICES e muy doon xew-xew bu rëy bu am solo ci dundu faar bi mais ñëw di compter ci yéen journalistes yi. yéen ñiy relais média bi ngeen jël foir bi def ko seen moomeelu bopp àggee ko fëpp ba sénégalais fu mu munti nekk rek mu xam ni di 28 novembre au 15 décembre xew-xew bu mag moo ngi am fii si Sénégal donc encore une fois di leen gërëm di leen sant donc di leen jox rendez-vous ci fan yi di ñëw ci benn randonnée pédestre boo xam ne ñoo ngi koy def tamit. Hmm. waaw euh, ren exceptionnellement on a deux pays invités d'honneur comme ni ma ko waxee ci ndorteel bi deux invités d'honneur parce que ñaari fête la ñuy feetu daanaka tey bu ñu nee FIDAK Foire internationale de Dakar également dañuy célébrer suñu cinquante ans CICES te ma yokk ci sax mënoo célébrer cinquante ans CICES te xalaatoo le président Léopold Sédar Senghor ndax bâtiment yii nii tey bu amee yàlla ak Léopold Sédar Senghor la. donc Léopold Sédar Senghor ci année 1970 déjà la jëloon ni buggoon Sénégal nekk benn marché su régional bu mag ñëpp di fi daje rendez-vous du et du recevoir nu mu ko waxee moo taxoon ci at yooyu noonu mu xalaatoon ni def ci benn centre commercial bu rëy rëy bu mucc ayib. pour que Sénégal nekk au cœur en fait de l'économie en fait sous-régionale donc ñoo ngi ko ciy gërëm di ko sant moo tax foire bii ñu ñëw dañuy préparer également benn explosion boo xamante ni dañ koy jagleel le président Léopold Sédar Senghor. c'est bon. ah. faisons le choix. Oui. La manifestation, le choix des deux pays le, le nombre de le choix des deux pays la date de la manifestation, le choix des deux pays invités d'honneur. Mm -hmm. Et puis aussi de revenir sur le sur le cinquante sur le cinquantenaire. Ak aussi le nombre de d'exposants. 50 ans et juróom fukki at la. Juróom fukki at. waaw euh, jërëjëf euh, lu tax ñu tànn tey euh, deux pays invités d'honneur sànq maa ngi koy wax ci tubaab tey ren lañuy ñuy féete suñu juróom fukki at atu CICES at bu nekk daan nañ féete FIDAK muy foire internationale de Dakar ren dañuy féete FIDAK féete également les cinquante ans tey moo tax ñu invité tey deux pays invité d'honneur muy Rwanda muy Guinée buñ jëlee Rwanda nga jël thème mu ren. thème ren bi ci tourisme la wax mais Rwanda ku ko jël xam ni ci misaal tey Afrique tourisme kenn rawu ko ci Rwanda doon dëkk boo xamante ne mun nañ cee jàngee lu bëri ñun pour mun a propulser suñu tourisme donc di profité di gërëm di sant seen ambassadeur bi fi nekkoon gërëm également di sant ambassadeur rwandais bu fi nekkoon. donc en termes de visite ren ñoo ngi attend xaar pas moins de trois cent mille visiteurs moom lañuy xaar rek daaw ñoo ngi woon ci. daaw ñoo ngi woon ci presque presque deux mille visites deux mille exposants ren également mun nañ yokk exposants yi maa ngi ko wax directeur commercial bi il foog mu yokk loxoom ñooy xaar pas moins de trois mille exposants di woo également tout le gouvernement ñuy ñëw parce que daa am loo xam dañ koy tuppee les stands institutionnels stand yooyu dañ koo jagleel gouvernement bi lu gouvernement di def ci secteur d'activité lépp lu muy def mu ñëw jëmal ko foofu sénégalais ñëw gis li ñuy def mu am lenn lu am solo sànq ndaw si dafa poser question sur souveraineté économique mu doon lu am solo ci ñun souveraineté économique ba tax na ci xarala yu bees yi dañuy développer benn plateforme bu ñu duppee Foire Connect mais Foire Connect boobu produit yu ñu si bëgg a fësal produit yu ñu si bëgg a jëmal mooy produit yu ñuy béyee fii ci Sénégal looñ fi bëgg a jëmal donc bépp opérateur économique bu fiy ñëw boo amee sant ñun dinañ la ubbil suñu plateforme suñu boutique en ligne pour ñu mën a jëmmal Sénégal li liñ fiy béyee te dafa am solo trop parce que encore une fois Léopold Sédar Senghor bi muy def foir bi c'était pour peser sur la balance commerciale du Sénégal de par nos exportations malheureusement exporté wu li ñuy importé ëpp fuuf ñun li ñuy exporté boo jëlee 2023 la balance commerciale était déficitaire de presque 4000 milliards déficit boobu nag il faut que ñu résorber gap boobu pour résorber ko il faut que ñu bëy li ñuy dundee donc gouvernement bu bees bi ak le président Bassirou Diomaye fay foofu lañ teg seen gis-gis ñun itam foofu lañ leen di gunge fan lañu leen di jàppale waaw euh, ren boo leen gisee ñu def faar bi mu tàmbali le 28 novembre première édition FIDAK en 1974 moo ngi am exactement le 28 novembre 1974 donc jour pour jour pour célébrer 50 ans yi moo tax tey ñu jël même date yi defee ko foofu c'est bon. yaa ma jox juróom fukki at bu job bu job félicitation This. entreprise yi ñuy béyee fii ci Sénégal looñ fi bëgg a jëmal donc bëpp opérateur économique bu fiy ñëw boo amee sant ñun dinañ la ubbil suñ plateforme suñu boutique en ligne pour ñu mën a jëmmal Sénégal li liñ fiy béyee te dafa am solo trop parce que encore une fois Léopold Sédar Senghor bi muy def foire bi c'était pour peser sur la balance commerciale du Sénégal de par nos exportations malheureusement exporté wu li ñuy importé ëpp fuuf ñun li ñuy exporté boo jëlee 2023 la balance commerciale était déficitaire de presque 4000 milliards déficit boobu nag il faut que ñu résorber gap boobu pour résorber ko il faut que ñu bëy li ñuy dundee donc guvernement bu bees bi ak le président Bassirou Diomaye fay foofu lañ teg seen gis-gis ñun itam foofu lañ leen di gunge fan lañ leen di jàppale waaw euh, ren boo leen gisee ñu def faar bi mu tàmbali le 28 novembre première édition FIDAK en 1974 moo ngi am exactement le 28 novembre 1974 donc jour pour jour pour célébrer 50 ans yi moo tax tey ñu jël même date yi defee ko foofu c'est bon.